actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek mbiru Ousmane Sonko ñu gis na nag kii di maître Abdou jaalika nekk avocat wu aji Sarr daal ne génn rek pour la première fois daal di wax rek ci bile dossier buñ sukkandikoo rek ci les échos moom avocat bi la xam xamle rek moom nee na moom avocat la du jël rek mbir yi di ko wax nii rek di ko bazarder day xaar rek ba bis ba jot ba mu war a janoo rek li nga xamante ni bii rek moo di euh, juge bi mu daal di soog a xamle rek mille mbir Abdou Dialy Kane daal nay xamle ne am nañ ay preuve yu firndeel ne kii di Adji Sarr kii di Ousmane Sonko daf koo mu nekk nag ay preuve yu leer a leer boo xamante ne bii rek day dëggal bi la viol waaye nee na rek du ko waxagul ne ji naam ne rek kii di Sonko personnalité politique la amee waaye nag bu rek ak juge ba boobu les politique du fa jariñ dara lu fay jariñ rek mooy fee nga xamante ni rek def na ko ko ci clientam boobulee rek dinañ ko daal di fësal rek a xam ne ne lii di viol diggante kii di Ousmane Sonko ak euh, Adji Sarr daal na cee toftalaat ne xam na clientam bi fi mu nekk waaye rek di ko divulguer ndax ay menace de mort yoo xamante ni bii rek teg dañ ko rek ci ndoddu clientam boobu lee at yi Adji Sarr moo tax du mas a wax fi mu nekk rek euh, jamono jii ba tey ci mbiru Ousmane Sonko ci la ñuy daal di dese ni loolee rek maître Abdou Dialy Kane wax rek dafa daal di rek méngoowut ak benn yoon lii Aïda Mbodj wax ndax Aïda Mbodj dafa daal di xam le ne li xew ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr nekkul rek lu euh, Polo bañ ko invité nag démb ca grand jury bay am foofee rek ca RFM daal dinay xam ne ne benn SMS rek buy firndeel ne lii ab complo la moom la ñu daal di rek jaawale daal di ko yónnee rek ay avocat kii di Ousmane Sonko nee na nag SMS ba la ca am rek mooy nee nañ duñu ko tëj ndax buñ ko tëjee rek réew mi day daal di jëngu waaye nag dinañ daal di rek jaxase rek li nga xamante ni bii rek moo di ab deram ba kenn rek dootul amati rek ci moom benn confiance kii wax li ni rek moo di Aïda Mbodj xamle ne nag ne SMS boobee léegi nga xamante ni bii rek daal di nay trompé daal di ñëw rek ci avocat wu Ousmane Sonko yi dafa daal di rek firndeel ne lii ab complot la ndax nee na yàlla suñu borom rek moo leen daal moom rek daal na cay toftal ne mën nañoo jàpp ne ki nga xamante ni rek moo di yàlla suñu borom dafa daal di àndal rek ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ndax weeraange gi nga xamante ni bii rek am nañ ko ca bile SMS daadi di rek jëm ci avocat wu Ousmane Sonko yi ñu wóyandi rek ba tey wax ci ki nga xamante ni moo di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly daal ne wax rek ci complot bi nga xamante ni bii rek am na ci diggante Ousmane Sonko ak ndaw sile di Adji Sarr daal koy tuumaal lii di viol ak menace de mort moom Cheikh Abdou Mbacké nag daal ne wax ne kii di président Macky Sall dajante naa moom rek ci guddee guddi goo xamante ni bii àndut ak soxnaam si di Marème Faye Sall nee na moom xam na mu xam te bu noppiwul nag dana wax fi nga xamante ni bii rek gisante na fa ak moom ci leneen wax ci Covid 19 ginnaaw rek ba duggee ci réewum Sénégal di waaj a def lu tollook atum yàlla te boobee ba léegi rek jugee gu fi ba tax rek ñu daal di jël lekk ab dogal ngir indi fi rek ay vaccin ngir ñu mën a rek daal di saafara rek bile maladie vaccin yi nag jot naa dugg rek fii ci Sénégal lu tollook 200000 rek ci ay vaccin yoo xamante ni njiitum réewum Sénégal tegagul na ci rek loxo mu di première dose yi waaye nag jot nañ koo séddale rek ci yenn rek ci ay région fii ci Sénégal bokk na ci. Thiès bokk na ci rek Saint-Louis bokk na ci Louga bokk na ci Kaolack waaye nag daal nañuy xamle ne bo wee ba tey nag vaccin yi bi mu fi duggee léegi gis nañ ne rek askan bi dañ cee daal di amee rek ay jiixi jaaxa ci seen bopp ba tax rek kii di Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk rek lépp lu jëm rek ci wàllum wér-gi-yaram daal nay xamle rek niki suba rek ci talaata ji dina nekk rek premier sénégalais bi ñu njëkk a defar rek bile vaccin moom nag lam ca daal sénégalais yi ngir xam le ne boobule vaccin dara nekku ca moom rek bu jiitoo ak autorité yi nga xamante ne bi rek ñoo nekkee fii ci Sénégal amaana nee na xel yi dina mën a dar rek ci bi le vaccin ndax ñoom lañ ca nammu rek moo di xeex jàngoro ji di Covid 19 daal di génn rek ci mille réew ñu àddu uh, ci leneen niki aljuma ji rek ñu génn ñu gisoon rek mbooloo mu takkoo takku soloon rek ay yëre yu weex daal di jubali rek ca uh, diwaanu tuuba bëgg rek a def tawaaf ca jumaay uh, Touba joojile waaye nag daayira bi ñu tuppee Muxaddamatul Xidma daal di jug rek ngir dakkal rek boobule mbir waaye nag liñ mën a jàpp rek jamono ji ci ëttu yëglekaay bi rek du Sénégal moo ñu ko daal di xamal xam ne ni mbooloo moomee rek am nañu ca jote rek teg loxo ba xam nañ sax ki jiite woon bile mbooloo personne morale bi bi mi ngi wuyoo ci turu Habib Diabane ñañ ci jàppale rek bokk na ci Abdou Karim Diouf Modou Diakhaté Ibrahima Diakhaté ak Ibrahima Mbaye Abdallah Sonko moom nag la mu xamal rek enquêteurs yi bu ñu sukkandikoo rek euh, ci source a nee na moom ab prophète la mi ngi wuyoo rek ci turu Issa dafa war a ñëw rek daal di sauver li nga xamante ni bii rek moo di euh, l'humanité te dañu ko daal di ngir mu daal di am li nga xamante ni bii moo di soxna waaye tamit daal di am doom moom loolee la xamal rek enquêteurs yooyu daal na cee toftalaat ne dafa daal di am rek benn mission boo xamante ni bii lam ko xamal rek dafa war a def tawaaf lu tolloo ko sept tour rek jëmee ko ca grande mosquée bu euh, Touba ngir daal di mën a sauver rek li nga xamante ni bii rek moo di euh, l'humanité jàpp nañ leen nag bañ a nga ca tribunal d'instance euh, bu Mbàkke rek jamono ji rek ñuy wax ak yéen moom profit bi di Habib Diabane daat nañ koy rek daal di mettre en garde à vue moom la ñu mën a jàpp rek ci li nga xamante ni source a moom la ñu daal xamal lépp loo xamante ni fësaan na ci rek ca mille mbir dana leen ko digtalaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu addu ci leneen ci artiste bi di uh, Coumba Gawlo uh, Seck ginnaaw rek ba mu génnee daal di wax ne dafa amee rek benn feebar boo xamante ni bii rek dafa daal di dal rek baatam bile ba day daal di arrêté rek li nga xamante ni moo di way rek jamono ji ñu gis rek kii di Youssou Ndour ak Bouba Ndour dañoo daal di demoon rek apporter ko uh, seen soutien ngir di ko masawu li nga xamante ni bii rek dal na ko di ànd ak moom rek bile naqar moom Coumba Gawlo Seck nag dañu koy daal di ñaan rek suñu borom daal di koy may rek tan noonu ngeen koy gisee rek ci image ki nga xamante ni moo di euh, Youssou Ndour ak Bouba Ndour dañoo demoon rek apporter ji euh, seen soutien ci ki nga xamante ni rek moo di euh, Coumba Gawlo Seck la diva ñu di ko ñaanal rek suñu borom daal di koy may wér ba mën a daal di rek continuer waat liggéeyam bi nga xamante ni bii doon na ko amal ñu wéyandi rek ba tey wax ci ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck ginnaaw rek ci concert ba mu doon def foofee ca Gambia moom gis nañ ne Wally Seck nag dafa daal di sol rek benn pantalon boo xamante ni bii rek koy waxtaane bu baax a baax jamono ji rek ci réseaux sociaux yi moom Wally nag dafa daal di génn xam le ne bam fi solee rek pain mu di tubéy yu xat yooyu le kon nag tey nag bu defee tubéy a rek wax dara te la te ci modd rek mu daal di sol boobule tubéy dañu koy daal di jeexalee rek ak Ndeye Ndiaye Banaya nekk fecckatu kii di Sidi a ginnaaw rek ba mu daal di amee ab jafe-jafe rek jamono ji ci réseaux sociaux yi mu nekk nag nga xamante ni rek moom lañuy ñuy gën a waxtaane mu di ab vidéo rek bu doy waar bu mu seqoo rek ak copain mu nekk nag vidéo boo xamante ni rek daf ko daal di story ah, ci page snabam ay yenn rek ci ay amem rek daal di koy partagé mu nekk nag yëf yoo xamante ni rek kii di Ndeye Ndiaye daal na ci am mbetteel nag bu baax a baax ba tax rek moom nee dafa daal di rus rek ngir janoo rek ak sénégalais yi jamono ji mu nekk nag vidéo boo xamante ne rek vidéo bu ah, doy waar la ah, ci gisin moom nag Ndeye Ndiaye mi rek daal baalu rek sénégalais yi bu baax a baax ci mile mbir mi xam ne ni ah, dafa rek juum moo tax rek mu daal di def rek ah, li ni mel waaye nag mi ngi jéggalu bu baax a baax te nee na ba tey jii rek xamagul ak ki partagé vidéo boobule lépp loo xamante ni rek fësaat na ci jëm ci loolu dañ leen ko diktalaat ah, ci suñu yeneen jotaayu xibaar lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig dajalay doon ba lëg ak jàmm